أحباب الشيخ إبراهيم رضي الله عنه إنه ليوم سعيد أن نلتقي في هذه البقعة المباركة في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتدارس سيرته ونتذاكر أخلاقه ونتعمق دينه الذي جاء به من عند الله وحيا منزلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض آه، نشكركم جدا ونهنئكم في هذه الليلة المباركة لأن السبب هذه كل هذا لأن المشايخ قبل الاستعمار حتى الآن هم حركاتهم وسكناتهم دائما في قضية الإسلام في داخل البلاد حتى في الخارج في الخارج السنغال و لموريتانيا لأن هم دائما معنا والشيخ يعقوب سمعنا يعني كلامكم ونشكركم جدا لأن قبل الاستعمار حتى الآن أنتم دائما مع الشيخ إبراهيم قبل الاستعمار في زمن الشيخ وفي حتى الآن والشيخ إبراهيم كان يقول شعب موريتانيا والسنغال ليس شعبين إنما شعب واحد والدليل ذلك الرئيس الجديد لما نزل لما أخذ الكرسي الرئيس في السنغال أول رحلة من دكار إلى نواكشوط وهذا دليل الكلام الشيخ إبراهيم رضي الله عنه و آه، شاهدنا محبتكم في الشيخ وفي مدينة الشيخ وفي أولاد الشيخ وفي مسجد الشيخ وفي درح الشيخ جزاكم الله خيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم واحفظوا أولادكم بالإيمان وجعلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهني لأهل مصر أيضا لأن آه، في زمن الشيخ إبراهيم رضي الله عنه أول أساتذة أتى من خارج السنغال هم أهل مصر في زمن الشيخ عن إذن رئيسهم جمال عبد الناصر إذن أنتم دائما معنا في الإسلام وفي الدين وفي العمل وفي كل شيء نشكركم جدا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدكم بالبركات السماء والأرض ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا أه، loolu ñu nuyu mbooleem ñi fi teew gannaaw buñ nuyoo suñ mbokk yi nga xam ne ñu ngi jugee Mauritanie nekkoon ak Cheikh Ibrahim radiallahu anhu démb njëkk ñuy am indépendance ñu nekk ba léegi ci mbëggeel ci diine lislaam ci dëggu ci bëgg Cheikh Ibrahim ci bëgg faydatu tijaani ci bëgg Medina ci bëgg jumaa ji ci bëgg lépp loo xam ne rek mu ngi Madina kon suñ fi teewee ñëw ba fii li muy wane rek mooy ñoom daa iman ñu ngi nekk ak ñun ci lislaam ak fi tarikati tijaniya di gërëm waa misra nga xam ne ci jamono Cheikh Ibrahim ñoom ñooy ustaas yi fi njëkk a ñëw jugee misra ñëw pour jàngale luxatul arabiya man mi bokkoon naa ci sabab bi nga xam ne nekkoon nañ ak ñoom ci maat bi ñuy ñaan yàlla yàlla barkeel leen yàlla barkeel seen njaboot yàlla dimbale leen ba nga xam ne liñ bëgg yépp dinañ ci àgg ci barke Seydina Muhammad ibn Abdullah di nuyu ñépp di nuyu waa daayira bi ci ndigali xalifa bi li ma fi wax yépp nag mu ngi jugee ci sama mag sama xarit sama sëriñ mu cheikh Mouhamadul Mahi xalifatu cheikh Ibrahim mu xaadimul umma bi muy ñëw mu ne ma soo demee yaakaar naa danga fa fekk monsieur le maire monsieur le préfet ak da fa fekk sax waa Foundiougne xaw ku ñu ebal waaye xam naa ne ñoom ñëpp seen xol yi tey mu ngi jublu foofu te bi ñëwee ba gis leen yéen ñett ñi kenn ku ci nekk rek li mu wax rek doy na suñ delloo ci moom yóbbal ñu leen di gërëm bu baax ci melokaan bi ak seen teggiin ak seen mbëggeel ak xam-xam bi nga xam ne wax ngeen ko fi boroom xam-xam su waxee rek da xam dëgg-dëgg ne kii mooy kii waaja la moo tax gërëm nañ leen bu baax di gërëm soxna si dégg nañ waxam bi nga xam ne ñëw na fi ci turi monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly ndax euh, bii daan naa fi ñëw ak sëriñ bi bu yàgg waaye xam naa boobu mooy jamono bi Mouhamadul Mahi bii di juddu waaye nag ci ay mission lañ nekkoon géej naa fi waaye ni ma ñëwee tey gis naa ne lu bari soppeeku na mbooloo mi yokk na te daraja yi feeñ ci kanam yi alhamdulillah yokk na macha allah te xam nañ ne ileel imaam ileel imaam rek ci kanam rek ngeen jëm. dégg nañ monsieur le député monsieur le maire monsieur le préfet monsieur le ministre xanaa kon monsieur le président rek moo ci des ko ndax rek la ak fépp fu mu nekk rek ñooñu elloo nañ lu nekk ci àddina parce que yàlla moo ubbi ay buntam di maye rek waaye nag am na yoo xam ne dafay seet ñi nga xam ne ñoom la koy jox yal na yàlla yokk leen ñuy gërëm daayira bi bu baax di leen nuyu ci seen taxawaay yi nga xam ne yéen a koy am at mu jot di góor góorgóorlu mënoon ngeen a ootee lu leen neex mënoon ngeen fee nekk di tëgg di tëb mu ngeen fee nekk di def comme ñu bari waaye at mu jot su ngeen demee bay ootee rek yéen a ngi oo boroom xam-xam yi yéen a ngi oo wàllu yàlla yi yéen a ngi oo seen mbokk diine yi ak seen mbokk tarixa yi dégg nañ fi taalibe tijaan yi dégg nañ fi taalibe xaadir yi dégg nañ fi tamit suñ kër maam mbooleem sëriñ yi fi nekkoon xataa suñ soppee yi ëhli fami dem nga xam ne ñoom néeg yi xam-xam lañ ñoom ñëpp teew nañ fi te seen cosaan mooy dëkk bii ñu ko daan dundal ci xam-xam ak ci yar nit ñi bi ñëwee fekk nañ leen fi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen jotal Euh, yóbbante sëriñ Maahi fan yee dañoo demoon Maroc biñ nekkee Maroc mu ne su ma demee genn wàll liñ fi toog dama koy liggéey waaye genn wàll gi ci des dama koy noppalu waaye biñ demee ba àgg rek noppalu jeex mënatuñu noppalu parce que ñi dégg ne ñu nga fa ñépp dañ ñëw di jëflante ak ñun ba guddi hôtel bi sax dañuy wax ne dañu am règlement am ay heure yoo xam ne ci la visite ñiy visiter di arrêté waaye biñ gisee ni mbir yi tëddee xam nañ ni ñi kenn mun leen kenn munta dox seen diggante ak sëriñ bi moo tax dañoo bàyyi rek ba ay 3 heures 4 heures du matin nit ñaa ngi ñëw moo xam muy taw moo xam tawut di ñëw rek pour ziare serigne bi pour fàttaliku lu baax ñu Cheikh Ibrahim fàttaliku taxawaay yi nga xamé tamit mu ko am ci àddina bi yépp ñom ñëpp ñu ko gis pour saafuwante ak mom motax tay xamna comprendre li tax mante ñew te li tegtale moy at mu jot lu métti métti rek dina ñëw daan na jugee ci voyage bu sori sax tey bët set tombeek seen xew bi mu bàyyi ko fa ñëw moo tax xam naa dangeen ko nangul ngàntam di gërëm ñépp di gërëm comme ni ma ko waxee waa daayira bi ak waa dëkk bi sëriñ si te mbokk yi am di jàmm yépp sëriñ bi mu ngi leen di nuyu di yóbbante nuyoo ak ñaan ci yéen ñuy ñaan yàlla ñaanam yàlla na ko yàlla nangu ci la wax ne biñ demee ba timis sax préparé na sol na yéreem mag yépp pare woon pour ñëw dem nañ bay nodd timis ci la gis ne daal mënta ñëw mu ne naa ñëw lu ma mun di def naa ko bàyyi ñoo ngi amoon sax ay xew waaye xam nga suñ la ooyee yow amatoo droit pour pour joxe ngànt ndax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci testament bi dafa wax ne yéen samay doom ma yéen mag ñi na ngeen yërëm xale yi waaye yéen xale yi na ngeen respecté mag ñi yërëm bi nga xam ne yërëm nañu ko ñun xam nañ ko ndax waxtu wu ne ci lay jëflante ak ñun kon su demee ba jox ñu ndiggal ñun tam respect bi ñu war seen diggante ak suñ diggante ak ñoom mooy ñu bàyyi liñ doon def rek daal di ñë ñëw dafa am benn bés daf may tooñ naan ma yow yàkkamtiwoo dara léeg léegi ñu ànd rek jamono boobu nag bokk teg ci la gënoon a yàkkamti suñ ne nii rek moom pare na suñ ne nii rek mu ne ooleen oh, Mahdi Yuusufa ooleen oh, Mahdi yàkkamtiwu dara su ko defee ñu ñëw su ko defee dinaa dox ndànk ba ñëw ak si mu ne mën nañ dem ma ne ko nañ dem ah, benn bés ñu toog rek ñu dugg oto dem ndakaar ci benn gàmmu biñ demee rek am benn xale ñu boole ñi ak moom xale bi moom moo ñu war a dalal biñ demee ñu oo xale bi oto bi gaara ñu taxaw xale bi ñëw bi ñëwee ba agsi ne salaamaaleykum ñu ne ko waaleykum salaam mu ne sëñ bi maa ngi ñëw léegi daal dem di dox ndànk di dox ndànk dem ñëw am lu mu jël indi ñëwaat ba mu yàgg mu demaat ñëwoon ñu toog di ko xaar rek bi ñu toogee ba mu yàgg rek mu ne chee waaye sëriñ bi kii kii kii mooy yéex mu ne ma aha gaddi <laughs> sa doom yi bàjjen delloo na la <laughs> waaye ma xam ne rek ndeysaan léeg-léeg sax dana seetlu ci yow dara waaye du la ko wax waaye keroog li ma wan mooy ne c'est très bien li ngay def nit ñi def na def nañ la ko <laughs> ndeysaan muy nit ku baax ku ku bëgg nit koo xam ne àddina fii la ko teg léeg-léeg nga dégg ay nit ñoo xam ne dañuy wax ci réseaux sociaux yi di wax loo xam ne doo xam ñii li ñuy wax lan la yow mi leen gën a xam li ñuy wax ci moom ay jox nañ ko malet jox nañ ko ay millions jox nañ ko nàngam moo tax wax na lii wax na lii te moom li muy wax yépp li ko xam-xam ak màndul digal rek loolu la daraja boo mun di am soo ñëwee soo defee lu baax dina la wax lu baax ba ñëpp ne yow la àndat waaye njuumte boo indi tamit dina la digal dal ci sa kaw ba nga xam ne ñëpp dañuy fone sax daf laa contre moo tax pour nga wax ne sax kii la àndat walla kii lu jafe la parce que da ngay gis ne rek kii dëgg la àndat te dëgg mooy ñëpp ku am dëgg rek nga ànd ak moom dafa am benn bés euh, suñ benn jigéen ñu koy wax Lalla Aïcha moom ak euh, Cheikh Makki ñoo bokk yaay muy doom ci sëriñ bi lan la Aïcha yu ma nettali mu ne ma dem Mauritanie mu ne ma ana suñ mag yi Cheikh Mahi ma ne ko mu nga fa mu ne mu nga fa rek di sànni àddina rek ma ne ko ah mu ngi fa de mu ne ma dama dégg rajo ubbi ci sama téléphone dégg am kuy wax naan sëñ maat yi dañ sëñ maat yi dañ ko jox xaalis moo tax muy wax lii dañ ko jox xaalis mu ne ah kii de xanaa beneen sëñ maat yi lay wax waaw mu ne xanaa daw sëñ maat yi bi ma xam mu ne jamono bi mu nekkee étudiant sëriñ yi dafa xam nga su école tëjee ba nga jugee Misra ñëw Sénégal suñ ñëwaan léegi su école tëjee dañuy dem Mauritanie wala ñu dem Nigéria parce que suñ demee foofu nga xam ne soppe bàyyi taalibe ñu ngi lay ñaan balaa école di tëj sax ne la ren ci ñun ngay ñëw vacances te soo demee vacance sooy ñibbi comme étudiant moom yéen a ma gën a xam ni muy dundee suñ demee danañ leen jox. Euh, seen addiya baay suñ demee yóbbu ko fële euh, fi ñuy jànge Égypte di ci dimbalante ak sénégalais yi nga xam ne amuñ bourse parce que am na ñoo xam ne dañ fa ñëw amuñ sax ñu lekk su boobaa ñoom du leen mën a xool ngir yërmande léegi nag liñ indi woon dañ koy jël di ci dimbali ay kër ñoo xam ne utal nañ leen fi ñu luye di leen indi may lu ñuy lekk ah bi école tëjee mu dem Mauritanie ci Mouhamadul Misri mu xaddami baay boobu bi mu demee dal kër kër Mouhamadul Misri bi mu fa dalee ñu jox ko benn néeg néeg bi nga xam ne moom lañuy jox doomi Cheikh Ibrahim yi néeg bi ñu ngi fa def benn mat la bu mag lal benn der bu mag su ko defee foofu lañ koy indilee lekkam ak naanam su julli jotee mu julli su waxtaan jotee mu wax ak ñoom léegi nag bi mu demee bay ñibbi ci diggante bi ñoom ñu ngi dajale addiya buñ dajalee addiya ju bari daldi jox ko ko dàppilal bi mu bi mu daan tëdd mu yëkkati dàppilal bi daldi def ci xaalis bi bi mu ci defee xaalis bi ba ngan gi jeex bi ñibbi jotee rek mu ñëw rek ñu indi oto yi mu dugg rek dem ñibbi bàyyi fa xaalis bi bi mu fa fàttee xaalis bi ñu toog ay lu mat ñaari weer comme néeg boobu su doom baay ñëwee foofu lañ koy dalal dañ koy tëj soo demee dañ koy tëj biñ tëjee néeg bi biñ demee ba am gan bu ñëw misri daal di wax lalla Aysa ne ko demal nga defar néeg bi pour suñ gan bi mu ñëw bale néeg bi fëgg néeg bi defar ba yëkkati lal bi rek fekk fa àddiyee ji ñu ko dajaloon yépp mu ngi ko def ci dàpp ci ron matla bi mu jël ko daldi yóbbu ko ci misri ne ko xaalis bi de ci néeg bi laa ko fekk mu ne ko ah ku moom bi mu ne ah fi ko fekk de mu ne ko Mouhamadul Mahi ba mu fi dalee ba léegi moom rek kenn dalul ci diggante bi mu ne ko waaw mu ne ko zak maaxi xatte mu ne ko maaxi dëgg koo koy maaxi dëgg ne ko moo ko fa ba seetal rek bi ñu demee seet rek gis ne moom fàtte ne ba xaalis bi sax fàtte na ni sax joxoon nañ ko àddiya ba mu ba mu fàtte ko ci dàppalal bi ku mel noonu nga xam ne alal daf koy daw daf koy dàqe mu koy daw kooku dina dàqee alal pour di wax ci ay nit ñoo xam ne li yàlla xam doy na moo tax tooñ dafa bari Sénégal tooñ dafa fi bari fim ne am na yu bari li tax muy dal ñu bari tooñ gu bari gi rek la tooñ ci làmmiñ te làmmiñ moo gën a bon yonentu bi sallallahu alayhi wa wax na ne mu ne làmmiñ li man jaasi sax jaase sax mënu ko léeg-léeg mu mu yàq nit léeg nga gis koo xam ne dara doxul digganteem ak yàlla waaye léeg nga gis rek làmmiñ wu ko téye di ñuulal ay jëfam di ñuulal ay jukkam di ko yàq ba mu mel ni moo fi gën a moo fi gën a bon yonentu wax na sallallahu alayhi wa mu ne am na ay nit mu ne am na ñenn ci nit ñi mu ne taxu leen a baax sax noonu baaxaay bu em lañ lañ baax waaye mu ne seen làmmiñ yi noppi na ci mbindeef yi ni nit ñi mbindeef yi tamit noppi ci ñoom ba mel ni ñoom ñoo gën a tedd ci kaw suuf mu ne am na ñu baax ñoo xam ne li ñuy baax yépp seen lam yi ñu ngi ko jël rek teg ko ci nit ñi nit ñi tamit di fayu soo créé leen nit dara moom tam mu créé la pour fayu su ko defee ñuy dal ci kawam muy wax ñu koy xas di ko wax ba mel ni moo gën a yées ci nit ñi te pourtant sax nit ku baax la waaye làmm ji rek moo gën a bon benn bés ñu indi benn bëy ci kanam yonent bi ne ko bëy bi lu gën a lu gën a baax ci moom lu gën a bon ci moom mu ne làmmiñ bi ñu ne am ah, mu ne su ngeen ko reyee su ngeen ko su ngeen ko daggee da ngeen dagg làmmiñ bi sànni làmmiñam bee gën a bon ci moom ñu def ko toogati tuuti ñu indeeti beneen bëy ci ay fan laaj ko waaw bëy bi moom lu gën ci moom mu ne làmmiñ bi ñu naan mu ne làmmiñ bi mooy li gën a baax ci moom su ngeen ko rayee su ngeen ko daggee na ngeen ko dagg ngeen kenn ku nekk mos nga xam ne kon yëf yi dawul ca bëy wa waaye ca làmmiñ bi la mbir mi tamit ci jukko yi la mu ñëw ci làmmiñ bi làmmiñ bi mottali ko moo tax yal nañu yàlla musal ci làmmiñ yal nañu yàlla musal ci cat bàyyi mu ne cat mu ne jigut jigut sax garab jigut bant sax garab garab guy dund daf koy topp ba mu dee mu ne cat danay topp nit kuy dund di ko topp ba ba dugal ko bàmmeel yal nañ ci yàlla musal moo tax euh, ne leen jàng ayatu kursi yu lu bari soo koy def rek yàlla daf lay dàqal yooyu yëpp yal nañu yàlla dàqal musiba ak cet ak làmmiñ ñu dellu rek ci ki nga xam ne moom mooy suñ sëriñ nga xam ne ñu bëri ci mbooloo mi dañ ko yaakaar ci ay jukkoom ak ay tarbiyaam ay jëfam ak liggéeyam ak li nga xam ne defal na ko der bu ñuul rawati Afrique rawati Sénégal sooy seet def na yóbbu na turi kawlag Kaolack Sénégal fu nekk ci àddina ci façon couleur yi nit ku ne waaye fu mu dem rek dañuy wax ne waaw kii xanaa waa di tànn ay réew ci réewi arab yi gën a mag nga xam ne dafa am xam-xam waaye suñ demee rek mu ne déedéet man man maay Ibrahima Ñas juddoo Tayba Ñaseen di doomi Xaaji Abdoulaye Ibrahima Abdoulaye rek suy wax turam sax wala soo gisee lettre yi su fekkee min nga di bind di liir lettre toujours su bindee bay suuf rek suy adressé rek Ibrahima Abdoulaye rek lay def ay alaaji Ibrahima ak ay cheikh yooyu yëpp ay tur yu mu liggéey ba mu fekk si ko rek waaye téléphone sax soo ko minaan suy uy téléphone rek su ko téléphone bi ne koo la rek mu ne man la Ibrahima Niass waaye gis nga àddina fi mu ne ni mu soppee ko fi mu ne xale yi am na ci ñoo xam ne ku ci dem màkka sax soo ko waxut alaaji mu ne la yaa ngi may sàllalu waaye jàngalekat yooyu yëpp du ko intéressé waaye dafay seet li muy def ci nit ñi ci jukko moo tax am na yoo xam ne du ko du ko toppatoo sax du ko bëgg sax sëriñ maax yi danañu nettali am na benn bés sëriñ maax yi amee muy sëpp ci daa di bind bi muy bind suñ maay di xoole rek ba këpp daa ji ci kawam fekk mu ngi sol semi alaaji semi si alaaji bu weex tal daa ju tuur ci kawam bu ñuul kukk am kenn ci suñu yaay yi nekkoon foofu doon séddale añ mu ñëw rekk ne xëy yow maa yi daa ji nga këpp ci kaw sëriñ bi nii bàyyi na ko ah ndongo daara ak daxa moom ñoo dëkk ñoom ñaar ay xarit lañ <laughs> yàgg nañoo jaxasoo rek mu jeex sëñ Mahi mu ne mën maa ngi tiit naan tey baay ray ma waaye bi mu waxee rek layal bi ma layal man dama mujj sax kontaan te noonu rek la daan def su la fekkaan suñ la booleek moom ba mu war laa edd soo ñëwee def lay layal ba nga yëg ne defoo dara léeg-léeg sax boppam lay jiiñ liñ la jiiñ man loolu xam naa ci dara bu baax ndax am na benn bés yarhamukullah am na benn bés ustaas yi nii yi may wax nii ñi ñëwoon Madina di jàngal muy wëfdu bi njëkk ñëw Madina daf ci am kenn koo xam ne daf ñoo booleeg baay bi mu demee na ko sa doom yi Mahdi ak Murtada ak Quraysh lim ay jàngkat lañ waaye tappale rek daw rek daw jàng rek ñoom gaa bu sedd nañ ñëw waaye ay dix heures onze heures lañuy ñuy ñëw temps yooyu dañuy jàng dañuy ñëw di jàng ay neuf ba ay deux heures ñu dem añi mu ne dañuy tardé rek ñu ngi danañ jàng moom waaye tardé duñ koy caaxaanee ñu ne waa bàyyi na ol ool ma leen awsa bi daal dem daal di ooñi bi muy ooyee xam nga suñ ne la uyul baay yow danga naan sama tereet taxaw na ñun ñëpp ñu njëkkalante rek jëmali néeg bi biñ demee ba jege néeg bi rek Moussa Gana awsa bi ne te ngeen dee de su leen baay jàppee ñëwee la mooy te ngeen dee de laay tey su rek ma e ne gars yi kon nag nañ leen dem foo xam ne tey ngeen dee ngeen fay fekk moom jarte dem ah ñu daw dem biñ demee mu ñëw bàyyi ko ana xale yi mu ne ko oo naa leen ñu eh, ñëw ba ci bunt bi ñu daw ona naa leen sëriñ beneen mu ne ko loo wax xam nga ni mu xamee nit mu ne ko waxuma dara mu ne ko ankay wax nga leen dara mu noppi biñ demee comme dañ daan ñëw di fa añee bi añ jotee ñëwuñ bi reer jotee ñëwuñ ci suba si bi muy dem di julli ji ñu topp ko rek mu ne Mahdi eh kaay leen ñu ñëw mu ne àcce ñëw leen ndeysaan ñu ñëw bi ñu duggee ci néeg bi rek mu ne oustaz yi ñëw nañ fii boole leen ñu ne da ngeen di tardé da ngeen di tardé jàng waaye ma yëg ni def leen dara man maa ko def ndax man maa leen waroon a jox montor pour ngeen gis waxtu yi waaye ñàkk jënd gi ma leen jëndalut montor moo tax xanaa léegi da ngeen heure yi ñu ne ko waaw ñu fekk mu jox ñi ay yére yére bu nekk mu boole ko montor waaye boobu 9 heures lañu war di dugg waaye toujours 8 heures ñu fekk ñuy xaar prof yi ñu doon booyee ñun ñoo leen di xaar pour pour dugg ci classe bi xam nga am na noo xam ne soo ko yaree nit yaa ngi koy yar waaye yaa ngi koy wan sax ne ko man sa nawle laa ngir bëgg mu baax rek am na beneen boo xam ne xam nga dafa amoon ay garab garabi tàndarma tàndarma yi mu ngi nekkoon saam mooy fi arab arab nekk mu am garab bi tàndarma yu mag su ñëwee tàndarma yi dafay ñor meññ yi su ñëwee rek dinañ jël ñetti bool yu mag duy ko ba mu fees indi ko néeg baay suñ ko indee néeg baay day jël benn bi ne nañ ko yóbbu kër Serigne Aliou Cissé ñu yóbbu jox Serigne Aliou mu séddale benn bi mooy nañ ko yóbbu ci jigéen ñi yi ci kër gi beneen bi dañ koy teg foofu nit ñi nga xam ne imprévu lañ mu naan diw diw diw diw ñu ngi yoxe ba mu jeex am benn bés ñu duy ñetti bool yi ba mu fees comme man dama miinoon di dugg ci néeg ba bi ñëwee ma ñëw ci salle bi moom ngay njëkk a jot mooy néeg boobu ngay jot fekk mu ngi tëdd ci lal bi ma dugg ci biir néeg bi cabinet bi bi ma duggee rek fekk ñu teg ñetti bool yi maa ngi soloon grand mbubb mu ñëw rek lal grand mbubb bi rek di di buub di sàcc tàndarma yi di buub comme moom su julli jotaan su julli jotee dafay jug rek dugg ci biir jàpp grand mbubu bi dafay ñëw rek sol ko kaala googu ngay gis muy sol radiallahu anhu su ko solee rek kaala gi daf ko defoon noo xam su ñëwee daf koy tagoo rek comme mbaxana fekk kaala na ko ba pare jël et bi rek jubal ci jumaa ji bi mu ñëwee beneen nii rek dugg ci néeg bi rek pour pour jàpp bi mu ne nii rek fekk ma maa ngi ci néeg bi rek di buub tàndarma ji waaye soo gisee ni man def na nii xool na ma ba ma gis ne gis na ma man tam gis naa ko rek mu wan ma gannaaw rek naan <coughs> wan ma gannaaw di sakkat ba dugg ci di sakkat sakkarlu ba dugg ci biir nag loolu nag dafa doon ay remarque yoo xam ne xam nga am na loo xam ne xale du ko fàtte ba léegi léegi duma ko fàtte yal na ko yàlla gërëm yal na ko yàlla fay ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp ci jotaay bu rafet bi nga xam ne ku fi ñëw rek da nga xam ne ay nit ñu baax rek ñoo fi tase parce que jokk mbokk gënte rafet lii yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuminu ahadukum atta yuhibbu li axihi maa yuhibbu li nafsi mu ne du ngeen gëm yàlla lu dul bëgg ngeen seen mbokk jullit yi seen frères yi ak seen sœurs yi ni ngeen bëggee seen bopp waaye ku fi ñëw dana xam ne ñu fi nekk ñépp dañuy xoolante bëggeel kenn ku nekk rek yaa ngi bëgg sa moroom ci góor ñi ak jigéen ñi ci mag ñi ak ci ndaw yépp moo tax ma doon ñaan sax kenn ku nekk pour ñu rafetal gën a rafetal suñu xol yi ku nekk kim dendal na ku néyu na ko baal ma àq mooy la baal naa la àq ñu baalante àq ñun ñëpp baal nañ la àq baal nañ la àq baal nañ la baal nañ la àq baal nañ la àq dama koy seetaan ah, déedéet ah, <laughs> ah soldaatu baay baal nañ la yal nañu yàlla jéggal xam nga li tax ñu war di jéggalante mooy li tax tarixatu tijaan yi di am njëriñ mooy li Cheikh Ahmad Tijaani wax rek radiyallahu anhu mu ne li tax nga war di def istighfar di balu yalla mune bu set mune sa tànk yaangi dem fi ngay dem man nga fa jele bakkar sa loxo yaangi jël limité man nga fa jele bakkar sa beut yaangi xol li ngay xol man nga ci jele bakkar sa waangi wax li ngay wax man nga ci jele bakkar sa cër yépp benn bu ne rek mën nga def loo xam ne bàkkaar nga ci jëlee moo tax mu ne bil il faut que rek ngeen di balu yàlla mu ne ki gën a sàggan mooy ki nga xam ne dafa fexe ba benn bennam yi gën a bëri fukk fukkam ndax ci lislaam soo defee benn bu baax dañ la koy may yu waaye soo defee benn bu bon benn bu bon rek dañ la koy bindal sàggan nag mu ne danay dem ba nga xam ne am na ñoo xam ne seen fukk fukk yi dinay dem sax ba gën a bëri seen benn benn yi mu ne sàggan gënta paase loolu ndax euh, bàkkaar bi nga xam ne sa morom yi nit sax nga ko def boobu moo gën a dangereux ndax mun nga tooñ yàlla def istixfaar nga réccu yàlla jéggal la ko parce que yàlla borom yërmande la yàlla mu ne inna laa laa yaxbiru an yushriku bi ma inna laa laa yushriku an yushriku bi wa yaxbiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan baidan ba mu waxee loolu ñëpp dañ ne nag kon bokkaale yàlla mooy bàkkaar bi gën a bon moo tax euh, euh, wax suyu ki nga xam ne moom moo rayoon nijaay yonent bi Hamza def naa am na film yoo xam ne ñu ngi ko ciy génne mooy ku ñuul kooku amee xaaj bi hindu digal ko ne ko feeg rayoo Hamza nijaay yonent bi butti ko jël xol bi mu ma yéey ko duma ko duma la baal mu dem biñ nekkee ci xare bi ak ni Hamza jàmbare woon mu fexe ba doxee ko gannaaw jam ko waaye bi mu demee moom tam ba bi mu demee ba yëf yi yàgg mu gis diine ji dem muy gën a xam yonent bi mujj gi mooy dafa bëgg a tuub bi mu ne dafa bëgg a tuub waaye mu ne man dama bëgg a tuub bokk ci saxaaba yi waaye daal xam naa ne awma mérite boobu ñu ne ko lu tax mu ne yàlla wax na ne du baale bokkaale man sama dund bi yëpp dama ko bokkaale yàlla yàlla nee na bu rey bakkan man damay rey bakkan ba rey ki gën a tedd yàlla nee na bu njaaloo mu ne moom ci njaaloo la dëkk mu ne ki gën a tedd di nijaay yonent bi maa ko rey man kon jarul may tuub nañ ma bàyyi noonu rek ci la aaya wàcc aay bi ban laati Cheikh Baye inna laa yaxbiru junuba jamian innahu huwa xafur rahim laa taxnatu min rahmatillah yàlla mu bu leen am naka bu leen am sikk ci yërmande yàlla yàlla mooy ki nga xam ne mën naa demee mbooleem bàkkaar mu ñëw bi mu ñëwee aaya bi ci la wàcc sax moom ci sa moo sabab aaya bi bi bi wàccee mu ñëw bi mu ñëwee yonantu mooy dafa tuub yonent daal tuubal ko waaye bi mu tuubee xam nga loolu mooy démocratie dëgg yonent mën mënatu ko te moo rey nijaayam waaye texte yi may nañ ko ci lislaam ne mën naa tuub mu ñëw tuub bi mu ñëwee tuub yàlla natt ko nag mu bëgg yonentu lool su yonent bi toogee rek mu ñëw rek toog ci kanamam su yonent bi toogee saaba yi rek mu ñëw rek jage ko waaye su ko yonent bi xoolee rek mu fàttali ko nijaayam bi mu rey su ko defee mu ne ko wax su suñ toogatee del nag ci sama gannaaw suñ toogatee parce que na toog ci gannaawam ndax daf koy fàttali baayam bi mu rey xam nga loolu rek la ci mun du ko xas du ko dóor du ko génne ci lislaam mënu ci dara ndax yàlla jox na ko feu waaye nag moom tam bu guddi xool di gis loo xam ne mën na ci jëlee tamit xol bu neexut moo tax mu ne ko del toog sama gannaar loolu yëpp day wane gars yi démocratie ak yi ñuy wax nii yëpp ci lislaam la samp baax moo tax lislaam dëgg ku ko seetlu danga mën a nekk ak ku nekk danga mën a jëflante ak ku nekk am na fenn foo xam ne mu ngi wax ne sax sa dëkkandoor mu ne suñ demee ba miraas ngay donn mu ne dëkkandoor yonent bi di wax na ci ci dëkkandoor di wax ci dëkkandoor ba wane na suñ demoon ba joxe droit keneen kuy donn sa dëkkandoor moom moom lañ koy jox pour soo génnee àddina sa alal ji mu donn la ci xam nga yooyu yëpp dafay dimbale yi nit ñi ak seen nekkuwaay nga gis azaka xoola azaka nit ki moo liggéey alalam waaye ñu ne la nang ci jël alal ji lu mu bëri bari na nga fexe ba jël ci 1000 francs bu nekk na ci génnee 25 nga jox ko joxe ko azaka am na kenn ci saxaaba yi euh, salabata dafa nekkoon ci saxaaba yi di julli su jullee fajar su yonent bi jullee fajar su julli gi jeexee rek mu gaaw rek génn mooy njëkk génn suñ ne asalaamaaleykum rek du xaar kenn day gaaw rek génn benn bés yonent di ko sell di ko sell ba benn bés mu ne ko waaw saalabata yow lu tax suñuy ne sëlbër rek bala ñoo pare sax génn nga ba dem mu ne ko wallaay yaa rasulallah mu ne ko am ah, mu ne ko ñun ay miskin lañ ne ko gis nga sagar bi may bi may teg ci sama yaram bi pour mën a ñëw jullis mu ne ko waaw ah, mu ne ko moom rek lañ am maak sama soxna su moo tax su ma julli ba pare rek damay gaaw rek di wax ko moom day gaaw sol pour mën a dem marché pour jéem a ut luñ lekk moo tax mënuma toog te su ma toggee ak melokaani sagar bii ci biir nit ñi tamit daal loolu rek la waaye du dara loolu rek damay daw rek waaye du dara tàllal ko ne ko yaa rasulullah mu ne ko am ah, mu ne ko ñaanal ma ma am alal mu ne ko daf lay sonal rek mu ne ko ñaanal rek soxla mu ne ko daf lay sonal rek mu ne ko yaa rasulullah ñaanal ma rek ah mu ñaanal ko saara bata toog rek jënd benn bëy bëy bi jur doom di jur muy jënd ay bëy mujj gi muy jënd ay xar xar yi di jur bay mujj gi muy jënd ay nag nag yi di jur di bëri mu gi muy toxu daldi di jugee ci yonent bi Madinatul Munawwar daal di dem dem ci beneen dëkk boo xam ne dëkki business la alal ji di bëri rek bi alal ji bëree fekk nag bi muy dem dafa dem ba nga xam ne daawul tàdd julli njëkk muy tox waaye mujj gi mu dem alal ji di bëri ba mu yàgg su ñëwee tey suba du ñëw mu dem dem ba ci digg gannaaw suba du ñëw mu dem ba ci digg far mu toxu waaye bi mu taxaw léeg mu toog ab semaine ñëw julli si àjjuma demaat léeg mu toog ñaari àjjuma ba mujj gi sax mu tëdd nag far nekk ci business am bi rek alal ji di bari rek léegi mu daldi ñëw ci yoona yonantu benn bés bi mu ñëwee rek mu ne ko yow foo nekk mu ne ko wallaay mu ne ko wan ko ne ko ñàkk jot rek su <laughs> nga nit ni mu gaaw a soppeeku yonent ne ko sa alal ji génne ci azaka mu ne ko lu may génne mu wax ko ne ko soo demee jox ko benn lim ne ko lim bii soo ko amee nag ci génne mu ne ah. demee mu ne daal yonent yi wax na waaye lii daal mënuma ko daal quoi mu ne dafa bëri ah muy dem di dem ba mu jigi yonent bi daal di génn àddina mu ñëw ci sidna Abubakar bi mu ñëwee dafa yonent mu ne ko yonent waxoon na nga génn azak mu ne ko wan ko ne ko bëggoon na ko daal waaye wan ko ne jafe-jafe daal di ko def di ko def di ko def ba sidna abu bakar jógee fi mu def ko sidna euh, omar sidna omar bi mu ñëwee rek bi mu waxee rek ñëw nag mujj gi mu ñëw nag ni dama réccu li passé dama ñëw pour jéggalu dama ñëw pour naa mu ne ko ku yonent bi racheté man awma ci yow soxla jugal fii walla ma dagg sa bopp mujj gi moom tam mu nekk ci loolu rek ba mujj gi mu génn àddina fekk demoon na ba géej ci yonent bi jamono bi yonent bi di dund ba léeg-léeg mu ne waa ana yonent bi namm naa ko géej naa koo gis di waaye alalam ji jàpp ko rek ba mu gi loolu yëpp mu mu mu bàyyi ko nga gis li ko yonent doon wax ñëw na ne ko lii daf lay sonal rek loolu moo ko dal ba mujj gi ñàkk na yonent am na ay nag ak xar ak waaye ñàkk na yonent bi ak saxaabaam yi moo tax nit ki tamit suy xalaat ñi muy jëflanteet ak ni muy war jëflante ak boppam su boobaa xam ne am na yu bari am na solo waaye am na yu bari amut solo waaye nag mu ngi des rek ci li nga éene yi nga xam ne yaa ngi ciy jëflante ak yàlla parce que léeg-léeg yàlla dafay teg ay nattu léeg-léeg mu jox la loo xam ne dafa dafa bëgg nga ko ci jaamu su fekkee loolu danga ko def jaas yi di ko cawee nit ñi su boobaa xam nga loolu nattu paase wu ko waaye léeg-léeg nga gis koo xam ne miskin la amul dara waaye dafay tedd xolam bi dafay tedd ba nga xam ne soo ko gisee da ngay gis ne ci ñi gën a tedd la yàlla nañ ci yàlla boole moo tax euh, ñi sant yàlla bu baax ci jukko yi nga xam ne suñ sëriñ bàyyee nañu ko Cheikh Ibrahim ma ne xam naa ne ku nekk mën na koo ku ne mën na koo jéem a doyadal te loolu mënta nekk parce que lu nekk rek ci ci sa bopp lay am waaye surtout nit ku ñuul surtout africain surtout nag sénégalais parce que taxaw na Sénégal taxaw boo xam ne man sama wajur bu jigéen daan na ma nettali mu ne ma am na jamono boo xam ne kër bàyyi mu ne bët bu set dañuy wax ne sëriñ bi moom tey tey la doon xaar pour génn àddina ndax ni ni ko noon yi wëree woon bugg koo faagaagal waaye heure bu ne rekk nga gis ne tey la gën a bëgg tey la xelam gën a dal tey la gën a xiir nit ñi ci lu baax ak ci bëgg lu baax ak jàmbaar moo tax kooku su fekkee ne dañoo dem ba dajee di ko fàttaliku loolu tamit sant yàlla la te ñépp respecté na ñépp respecté loo na taalubeem bépp sëriñ soo demee ba gis euh, téereem yi yi nga xam ne mu ngi ci ñaan walla mu def ci ay bayti di tagg yonent bi wala muy diggal taalube da ngay gis ne rek mu ngi def seede yu baax ci kilifa diine yi xaaju Malick Serigne Touba ñoom ñëpp ku ci nekk rek mu ngi wax qualité yu rafet yi nga xam ne yàlla def na ko ci yow te wax sa ngëneel yi moroom du wàññi dara ci ngëneel yi la yàlla may moo tax loolu loolu la digal taalibe yi moo tax am na yu bari buñ ci jéem a dugg sax di créer ay wax yoo xam ne léeg-léeg nga gis ko wax dara rek sànni ko ci réseaux sociaux yi mu mel ni nit waaye soo demee ba àgg ci moom sax da ngay gis ne ki doon wax du dara nit la koo xamee sax amut xel waaye wax ji dina àgg foo xamee day mel ni nitay wax nit ñi di ko waxtaanee fekk ñu ci bëri sax dañoo am dépression ci ñuy wax parce que am na yenn jot yoo xam ne sax ñàkk liggéey ak jot yi ñàkk nekk ci dara ak ak dof ak ñàkk yeewu loolu rek moo koy teg ci kaw nit ñi am na lu bëri loo mën a jàngale am na yu bari yoo mën a fàttali nit ñi waaye dara wax ju bari rek te wax amul njëriñ keroog maa ngi dégg benn góor muy nettali kenn ci suñu xale yi mu ne benn dof moo nekk ci dëkk bi dof bi nekk fa di wax rek di wax rek bi muy wax rek ba benn bés ñu am ngénte mbokk yi am am xew bi ñu amee xew ñëwee nañ dem ci xew bi dëkk bi yëpp préparé mu ñëw rek ni damay dem ci ngénte li ñu ne ko déet yow moom mën ngaa toog parce que dof dox nga yow soxlawuñ la toogal rek mu ne baax na dem leen fekk dañoo wax ne daf ne dañ ne ko doo dem mu ne man kii di sama mbokk ñi mu doyee seen mbokk ma jege ko muy sama freer mu am ngénte ngeen dem bàyyi ma fi ñu naan ñëwuma loolu yéen du ngeen ko def sax gaa yi ne ah daf bi wax na dëgg sangul sangul solo mu sangu solo bi mu soloo ba toog ba ñu xaar pour oto bi ñëw yóbbu leen mu ne su ngeen ma yóbboo ma rey liir bi de <laughs> gaa yi ne leen mu ne su ngeen ma yóbbu ma rey liir bi gaa yi ne kon nag kii du dem ah bi ñu waxee loolu mu ne ñu ne na toog biñ ne na toog mu bàyyi ba gaay nopp mooy leen ngeen bëgg a dem yéen ñëpp bàyyi ma fi su ngeen ma fi bàyyi rek ma taal dëkk bi almet lay jël kos néegi yëpp gaay ne xée kii suñ ko yóbboo mu def gaaf suñ ko fi bàyyi mu def gaaf noppi rek gars yi jaaxle di wax ba mu yàgg mu ne hey xam ngeen nu ngeen def mu ne ko mu ne da ngeen may jël ngeen xeew ma su ngeen ma xeewee ba ma dëgër ba mënuma dara su boobaa ngeen dem ci ngénte li gars yi jàpp ko eew loxo yeeg tànk yeeg yëpp dem bi ñu demee rek benn waaye fekk ko fa ñëw rek salaamaaleykum mu ne ko waaleykum salaam mu ne ko ah yow lu la dal nii loo def ni mu ne ko bëri wax rek li ma dal yëpp wax ju bari rek moom ko tey moo tax wax su bëree rek dafay mujj sànq borom <laughs> wax joo xam ne doo jàngale xam-xam doo jàngale yiw doo jàngale dara la plupart foofu fekk koy def rek moytu ko yàqam mooy gën a bëri defaram te loolu nag fi ma dafa xew yal nañ yàlla musal ñuy sant yàlla bu baax di wax ne sëriñ bi xam nañ ne yónni bi mu ñu yónni su ñëwoon ci lay gën a jotal xam naa nag nee na nee na ma demal ruuxul si dana ànd ak yow su fekkee am na lu mu fi wax su fekkee njëriñ ngi ci ci moom rek la ci ñaan ak warlu yi mu def waaye su fi nekkoon xam nañ ne yëf yi dana gën a baax gannaaw loolu tamit ma seddal leen mbëggeelam ci yéen waxtu ne mu ngi nettali jukko yi nga xam ne yéen a ngi ko am ci àndoo ak ci góor góorgóorlu ak ci jaamu yàlla ak ci liggéey moo tax yàlla wàcce fi barke lépp lu ñuy séddale ci état bi da nga gis ne doomi dëkk bi ñu ngi ci am ñu ngi ñu ngi ci soo demee assemblée ba fekk leen fa soo demee ci ministère bi fekk leen fa soo demee ci maire yi fekk leen fa soo demee ci conseil régional fekk leen fa soo demee ci jàkka yi fekk leen fa soo demee ci jàng al alquran bi fekk leen fa soo demee ci xew yu baax yi góor ñeek jigéen ñi ñëpp ñu fi tasee di jokk mbokk te loolu rek la lañ bëgg loolu rek la yàlla bëgg ci doomu aadama te loolu yëpp yàlla may na leen ko macha allah yàlla na barke yàlla na ngeen ko wàcc wàll seeni doom ak seeni doom ak seeni sët ba pencam yàlla ñu dellu di gërëm daayira bi bu baax di gërëm xale yi nga xam ne xale yi dëkk bi lañ waaye xale yi Medina lañ ndax soo dégloo léegi Zakaria mi nga xam ne mu doon wax léegi da nga xam ne Medina la jànge ci wax ju rafet ji ak ci yar beeg yooyu yëpp ak ni mu respecté mag ñi moo tax ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen encouragé ci ngeen téye foofu bu baax du leen def yokk lu dul lu baax rek ndax am na jàmm yàlla yoo xam ne soo amul respect léeg-léeg waajee romb la am na benn miskin bu ñuy nettali miskin laa mën a wax ndax dafa nekk ci ron garab gi nit ñaa ngi am seeni kër di dund mu nekk ci ron garab gi dëkk ba dafa am benn buur bu mbëru bu am alal am doole buur bi suy romb rek guddeeg bëccëg dina fekk góor gi paa bi mu ngi toog ci ron benn garab foofu lay tëdd rek benn bés mu ne waaw góor gi li muy def ci ron garab gi waa dëkk bi dëkku kii daal kenn xamalu ko dara heure bu ne mu ngi ci roon garab gi fu muy lekkee ñu ne ko xamuñ ko de fu muy naanee ñu ne xamuñ ko de mu ne suba bañ dem ci suba si biñ ñëwee biñ demee ba ñëw fekk fi góor gi nekk mu ne oo ma ko gars yi ñëw ne ko eh, am nga sens waaw ah, ñu ne ko buura la oo kaay uyu buur mu ne ah buur lu may dee gaa yi ne ko ah nee na daf laa soxla mu ne neleen ko moom moo ma soxla na ñëw man soxlawuma ko moom moo ma soxla ñu ne buur ne ko ah góor gi nee na soxlaal la dara yow yaa ko soxla yow nga dem mu ne tàmpi daal di dugg ci otoom dem waaye bi mu demee ba tëdd tëdd ba guddi mënut a nelaw mu ne waaw miskin bi nga xam ne maa ngi xalaat sax fi mu jëlee lekk nit ñu bari di wut audience pour jot ma mu jafe man ma ñëw di ko oo mu bañ mante nelaw mu toog ba njël mu yor ndànk dem góor gi fekk ko fi mu tëdd salaamaaleykum mu ne ko aleykum salaam mu ne ko man maay buur bi bi yónnee woon pour ñu oo mu ne ko man gisuma man buur bu dudd yàlla gisuma ko ni ko ah yow buur nga man da yàlla laa kam ci buur mu ne ko dama laa bëgg a motax moo tax mu ne ko man ndimbal ci yàlla laa koy sentu waaye séentuwuma ko ci yow góor gi dem bi mu demee dem tëdd tëdd mënta nelaw mu ñëwaat bi mu ñëwee ne ko nag léegi fekk daf ne ko yow man maa am seen ndimbal waaye yow amoo sama ndimbal bi mu tëddee tëdd mënta nelaw mu daldi ñëwaat bi mu ñëwee ne ko waa léegi man dama bëgg nga dimbale ma góor gi ne ko mën naa laa dimbale de waaye dama tegal ay condition mu ne ko yan condition mu ne ko buur yow xam nga ne sàcc nga mu ne ko lan mu ne ko sàcc nga buur bi ne ko man mu ne ko waaw mu ne ko yow fasi jàmbur yi njuri jàmbur yi tooli jàmbur yi alali jàmbur yi yëpp yaa ngi ko jël léegi pour ma dimbalee da ngay dem nga delloo yëpp soo ñëwee ci laa lay dimbale ah. buur bi tamit dem di wër di delloo bagage yi yim stocké woon ci ci dëkk bi di jël wut équipe ñu naan diw sàngam jëloon nañ nangamam diw sàngam jëloon nañ nangamam di séddale di séddale ba jox ñëpp bi mu demee di ko def di ko def ba mu mujj yaramam mi lakk mu ñuul kukk ndax sonn xam nga mu ngi koy tarbiya sax ni sonnee sonne mbubbam yi tilim xotteeku yaramam wi lakk muy dem ba ci digg ba ba yëf yi jeex mu ñëw bi mu ñëwee ba ci góor gi rekk góor gi nuyu ko rekk rek sedd guy rek dee ci loxoom bi góor gi dee rekk mu gis mbooti góor gi dugg ci moom ndeke góor gi moo doon xut bu zamaan moo doon xut bu zamaan waaye dafa dem ba gis nit ñi nit ñi lekkante ak àddina bu lëndëm bi te gis na ni moom jeexal na mbootam mi xamul ku mu koy jox ci la dem dëddu àddina génn àddina dem ci àll bi di seet jaamu yàlla bu mu jox mboot mi waaye ku ñëw rek jàpp ni ab dox la rek yëf yi rëcc ko waaye bi buur bi nangoo mu tegal ko ay conditions yu métti mu nekk ci nekk ci nekk ci ak ngëm ba mujj gi bi mu ñëwee nag bi mu ko neyoo rek ndeke jox na ko mbóot gi buur bi bi mu demee ba mbóot mi dugg ci moom ci la am wilaaya xutbaaniya ba pare en même temps mu nekk buur ñaari siru àddina ak àllaaxira dunya wal aaxira siru zahir ak baatin yëpp dugg ci moom ci la soñ soog a xam ne ndeke góor gi moo doon borom jamono moo tax léeg-léeg koo gis rek mën na laa jëriñ benn bés ma toog rek dem Dakar dawal sama oto ba ci supermarché bi ma ne xaaral ma jënd xaaral ma dem jënd fa ay bagage maa ngi yàkkamti bi mu ñëwee ba wàcc oto bi rek di waaxu pour dugg ci supermarché bi rek am benn lafañ mu ngi toog ci euh, weloom bi rek ne salaamaaleykum ma alaykum salam wax wax bu mu yag mune salam alaykum rek ma tourner dal di ñëw gaaw làmb 1000 francs rek ñëw rek neyo ko 1000 francs mune dede sëñ bi dama doon jox adiyé dal di génne 5000 jox ma mune wa ki yaram bi yar bi ma dóor métti di man ma ngi indi sama 1000 francs foog ma ci ne mom mu jox ma 5000 ma xamne nit ñi yàlla rek mo leen xam. mujj gi kooku waxtu wu ne dama fay romb su ma ñëwee su ma génnee xaay génne dix mille mu bañ génne vingt mille mu bañ su ma ñëwee rek mu ne dara dal di génn xaay soo jom mujj gi dama fay bugg a dem parce que gis naa nit ku tedd la ci yàlla dama koy bugg a gis waaye comme soo demee rek dafay génne li mu amee jox la tamit du ma bugg toujours di jël li nga xam ne ni mu ko jëlee dafa métti su ko defee léeg-léeg damay dawal sama oto ba ñëw rek séen ko xool ko ba doyal ñaanal ko yàlla rek daal di kon continuer ndeysaan xam nga àddina mu ngi noonu moo tax yàlla nañu yàlla jëriñ ñu ñaan képp ku fi ñëw am na yàlla faj mboolem sa aajo képp ku fi ñëw ak feebar yàlla na ko yàlla saafara képp ku fi ñëw ak jaaxle yal na ko yàlla teggi képp ku fi ñëw ak ñàkk yal na ko yàlla ubbi képp ku ñëw ak bor yal na ko yàlla fay yàlla may ñu fan yu gudd ak wér gi yaram ñu yàgg fi lool di xidma diine lislaam tariqatu tijaaniya faydatu tijaaniya yooyu yëpp yàlla dafa ñuy karama yàlla dimbale ngi nag yàlla musal ci gàcc àddina ak gàcc àllaaxira yàlla musal ñi ci yu ñaaw yu bon yi rek nga xam ne mu ngi wër di dal nit ñi rek yal nañ ci yàlla musal yàlla dimbale ñu may ñu lijaaba may ñu wilaaya may ñu ngërmaande mag ñi may ñu ngërmaande sëriñ su baax si may ñu ngërmaande ngërmaandeem may ñu ngërmaande yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam ngërmaande Cheikh Tidiane radiallahu anhu may ñu ngërmaande Cheikh Ibrahima radiallahu anhu اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آه وآله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى لي حق قدري ومقداري العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتي لما خلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى